dalal ak jàmm ci chaîne bi di Papzo TV fekkee gan nga ci chaîne bi abonneel activé cloche bi ndax moo lay permettre saa yu dugalee vidéo nga mën cee jot